est-ce que vous avez essayé d'aborder la question déglu ma euh, xam nga euh, li nekk ci biir man mënuma ko commenter mais xam naa daal ne ci jamono ji ma nekkoon ci cabinet bi am na ñu ma doon approché pour di ma bugg a convaincre ci troisième mandat je vais pas citer de nom mais man j'ai été toujours radical troisième mandat mënuma ko accepter le président Macky Sall mais su ma demee ba man nga ne ministre la avantage de ministre yooyu yëpp ma teg ko fële parce que dëgg laa bëgg a dox dëgg nag mooy suñu valeur démb yi. mais mais mais amoon su uh-huh. fekkee aujourd'hui ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla teg ci kanam ñu yore Sénégal amuñu yenn comportement yi mais suñu doom seen doom fan la ñuy jëlee référence fan la ñuy jëlee ay jikko yoo xam ne. la ñu yoreel Sénégal donc c'est ça le problème de du président Macky Sall te man li ma ci gën a metti mooy je ne pensais jamais que soxnaam dina ànd ci affaire troisième mandat. ndax lan. je ne pensais jamais parce que elle a été toujours une femme lucide Marième Faye a été toujours une femme lucide toujours. parce que vous avez des relations avec sa femme pour xam ne. mais ñoo dégloo dama ne ñoom dañoo am xarit yu bees. depuis deux mille dix neuf je pense amul kenn koo xam ne daan nga ànd ak Macky ku ko jegeeti il s'est entouré de nouveaux amis moo tax ñu conseillé ko. ci affaire mais yan nouveaux amis. mais ñu ngi koy gis ay ñoom Mahmoud Saleh. non ma ah, non attention attention. ah ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñooñu dañuy liggéey ensemble déglu mais quels nouveaux amis. ñooñu dañuy liggéey ensemble. ñi muy reerandoo xamoo leen ñi muy añandoo xamoo leen ñi muy tukkandoo xamoo leen. donc yow li ngay gis ci télé suy dem euh, cérémonie et cetera c'est ce que tu peux juger. parce que vous posiez, vous faisiez partie ah, de ce cercle d'amis là. non attends. ah. revisiter toutes les cérémonies wala fu Macky Sall di dem ndax di nga gis Arouna ko mën Diouf moi je suis un conseiller conseiller laa man fële laay taxaw su ma xel la soxla soxla soxlawuñu ma ci politique soxlawuñu ma ci dem jaale ji soxla ñu ma ci dara